ngeen jëf mbokk amateurs yi jërë ngeen jëf yooyu ñuy seetaan si Jokkeel TV site bu mag bi tey nag ñi ngi ñëwoon fii si Pikine seet si benn ndaanaan benn champion benn koo xam ne def na lu ne si làmb si ligue simple si ligue frappe ñi gën a xam si turu Valdo mu war a bëri le 25 décembre mook caat caat bu waalo muy ne combat bu neex ñaari ndaama lañ ñaar ñu tolloo lañ Valdo nag gëjoon nañ ko gis si làmb ji gëjoon nañ ko gis xamuñu la moo tax mais loolu yëpp ko si laaj ak nu mu préparé le 25 ñu ngi fekk si digg Pikine dinañ wax ni da Valdo fan la nekkoon dinañ waxtaan ak moom si lu baree bari nga bàyyi mu nuyoo pare ñu doog a xuus si waxtaan bi Valdo maa ngi lay waaw am ah, maa ngi lay fay di nuy ñëpp di nuyu waa Pikine bu baax dawat na waa Ginaaw Rail waaw di nuyu waa Jokal TV di ñaanal site bi yàlla mu dem ba ëpp seen loxo yàlla na ko yàlla barkeel def ko site bu mag waa parce que tamit ku ne koy liggéey rek kuy liggéey maa nga bëgg ñoo ngi ñaan yàlla yàlla defal jaamu site bi. def ko site bu mag yow ya, tamit do nuy walé am ak sa cameraman bi waaw ñoo ngi nii waaw toogoon nañu diir bëré wuñ am problème adversaire mais yalla dogal na aussi tamit am nañ combat ñong koy waaj comme ya ñu daan waajé combat yi ya. di ñaan yalla bi nga xamantene ne moom may yàlla may ñu ndam ci kaw caat walu waalo nga jëg bëré bi ci yow la woon wala ci ñak adversaire la woon. non non du woon ci man wa ci adversaire yi la wa parce que ñun mom buñu ñu nekkee ba loo wate mosuñu delloo avance kenn. bu nekkoo tamit mos nañoo delloo avance bi kay na promoteur na ko wax waaw sa combat du yàqoo si ñun daal si gàttal waaw mosul am combat bu yàqoo si ñun. yàqoo si yow déedéet combat mosul yàqoo si moom wax dëgg war na yàlla ñoo woon toog di taaxirlu woon di xaar waaw xëy na yàlla da koy soog a dogal saa jël nañ avance bi ñoo ngi koy waajal ànd ak suñuy mbokk comme niñ ko daan waajee di ñaan yàlla yàlla ma ñu ndam. ñoo xool si biir combat bi Valdo fan la nekkoon ba tax ñu ko gis fan la lan la. waaw mooy li ma rek am comme tey nit da ngay dogal li yàlla dogal lee parce que ay jaam lañ rek dañuy sabablu comprendre nga parce que buñ sañoon chaque jour ñuy bëre parce que tamit bëre mooy suñu métier instant yi mënatu ñu doon lenn lu ay mbër te defe naa tamit làmb tamit diiram yàggul boo xoolee làmb du métier parce que passe temps rek parce que tey ñaanoon nañu yàlla wala heure bi fekk ñu nekk si leneen waaw mais tey boo xoolee tey fuñ toll ne gënaluñu parce que waroon nañ weesu fii parce que boo nombre combat yi ma bëre ak combat yi ma bëre nii doy na xam nga différence bi ëppante nañ te bëri nañ mais ñu encouragé sama adversaire rek parce que tey ma ngi ko sant di ko gërëm bu baax. waaw waaw bu baax a baax parce que tey moom amaana bu nekkutoon moom mënoon naa toog bu année bi du di am ko ma bëreel comprendre moo tax lu ma mën a wax si moom bëriwul dama koy ñaax rek di ñaanal yàlla bëgg defal waaw bala jour si yàlla mooy ñu dem si kawam. ñaata nga toog bëriwoo. man daanaka moo bëriwul doon bi ten mooy doon trois ans. deux ans laa toog waaw. waaw waaw. fii ñu la fekk ni mooy fan. fii mooy sama digg gox mooy Pikine Ridis. waaw maa ngi fii si biir Pikine Ridis Saalu Giley. waaw mu nekk koo xamante ne bu ma dooree ba tey fii lay entraîné waaw bu ma dalee bëre ba tey fii lay entraîné salle bi. waaw fii laa xam fii lay entraîné. fii nga dëkk. waa non man Pikine laa dëkk maa ngi dëkk Cëg maa ngi dëkk digg ginnaaw raay bu ñuy wax Enda waa Enda waaw maa ngi dëkk Enda waaw. ñu gis ni jël nga bi Pikine gi yëpp tex sirip fuñ tourné Pikine dañuy gis ni gars yi ngi waaj combat Valdo lan la sa secret waa Pikine. non gars yi moom comme sa zaari rek ñoom am xam nga ñooñu fi nekkal nekkal mbëri yëpp nekkal nekkal mbëri yëpp non mu ngaa kii tuuti rek nekkal mbëri yëpp comprendre parce que tey amoo xaar ma yàlla. mooy mbër bu dëkk Diamaguène bu dëkk Guédiawaye bu dëkk fépp comprendre nga amoo si kenn xaar ma yàlla xam nga di nuyu nga di bu baax parce que tamit gis naa jéegoom si combat bi Morta la di ko nuyu bu baax di ko xamal ne ñaan leen bu gën a baax comprendre nga di woo ñëpp daal nga xamante ne tey xaaj wutuñu xaj ak seen ñëpp la ñuy woo ku si mun a jàpp rek Ablaye Timbo ñoo ngi lay xaar gisaguñu la si combat. mën ngaa woote woote teel na di nga woote. mais sa digënté sa grand yi nekk Pikine ngay préparer combat ñi préparer combat ku ci melni Ama kusi ku ci nek Boy Niang ku ci melni ni sen ku ci melni ni ku ci melni ni keneen ak keneen yéen ñëpp combat sen diggante. waaw man mom awma kenn xaar yalla parce que ñoo ñep ngay lim danaka defena naa rek la la jitu ma ko jëk bare mais ñom ñep ñoo ma jëk a ñu nek ñu jitu ñu nak te kula jitu nek kula jitu tamit nek sa grand ñu jiitu ñu xam nga. ñu ñaan yàlla nag fu ñu yegg ñu yegg fu ko raw boog ñu dënd ak ñoom comprendre parce que wax dëgg fa ne yàlla ah ama sam waay la boo ñaa sam waay la ama seen sam waay la comprendre nga voilà sooku sama gaañ la dañuy waxtaan nicement comprendre même jour ñoo bokk même jour bu ñuy bëri amaan sama combat yàggul taxaw nag waaw daanaka bu mu tax ma jëlee avance ba tey defe Wah modul au moins. waaw moom. daaw la jël avance moom. waaw la jël ren nga jël avance bi. waaw ren laa koy soog jël nii yàggul dara parce que bañ a toog xaar ma jël ko la sama jàmbaar la waaw comme moom defe combat bu yàqoo si moom combat du yàqoo si man moo tax yàlla boole ñu war jëflante waaw. Thierno Waalo champion der nga war jëflante ak moom ba muy mujj mu ngi mujjee Mamor bu Tigre la mu nekk ndaanaan nga jël booy woowu xam nga caat bu waalo bu baax a baax. caat bu waalo waaw suivre ma ko bu baax a baax nag. waaw parce que koo jël avance am rek suivre ko mais ndaanaanam dañu nangul nañ ko ko parce que tey boo xoolee tey fu mu yegg si fii tey yaa fusam taxul mu yegg si foofu njàmbaar la woon ba yegg si fii kon tey kooku noonu boo ko jëlee da koy jox ci respecté ko waajal ko bu baax comme ni nga daan waajee combat yi waaw parce que ndaanaan la champion la ah ñoo ngi ñaan yàlla yàlla may ndam si kawam. caat bu wàllu ak yi nga doon préparé yeneen combat wute wu non non wute wuñu non wute waaw parce que wute wuñu quoi parce que boo xoolee tey luñ daan préparé dañoo yokk waaw dañoo yokk xam na changé tuuti rek parce que tamit boo xoolee bi moo ëpp préparation parce que tey amaa amaana am na ñoo xamante boo bëree ñoom ba pare tey di sentu ñu nga war a bëri say say naataangoo ñi nga war a bëri dëgg comprendre nga ñu mel ni ñoom grideur nga wara a jëflante jëm yoy ba paré xam nga yalla dogal nak combat jul antu nga mu a jël ki kon da nga koy jox cër wajal da nga japp ni chat bu walo lamb boole wu leen ana balance moo leen boole nga jël ko. wa bo xoolee si par ci palmarès wa des na touri lamb boole wu wa waaw mais nag tey làmb boole nañu ndax champion la jey dal te ku dan champion bo mu nga bolé mu nga bolé ñep wa wane na boppam wane na xarañteefam wane na kon tay amul ci lenn lo xamantene dañ ko si xeeb wala dañ koy minimiser amul parce que tay amana mënon nañu baña jël ndax bo xolé moy compétir te boobu dañoo toog. da waral mi ngi bëri. wala kon bu nango jël ñu dañ koy sant di ko gërëm parce que tay amana bu ñu mom mom moom dinañ am yeneen adversaire te possibilité bol boobu mo moo koy mo koy indi ndax buñu ñu ñu tok noonu amana mënon na mënon na gëna ñaaw mais nak motax luñu wara wax ci mom du bari waaw ba jour ba rek yàlla mooy ñu bëri combat bu neex combat bu nga xamante mooy dàq si année bi promoteur bi tamit lu ñu fay xaalisam ah yàlla bu mu ko rëccu ndax gëm naa ne suñu combat man ak moom du am ay tànk arrière waaw ndax man gëm naa loolu. promoteur bi di ndaw di xale jël xaalisam duggaw si làmb boo xoolee daaw 25 décembre daaw tëggoon na làmb mu neex trop ren mu dëggaat ren mu biisaat ndax booy xool daaw moo tëggoon combat ñàkk jariñu ak ak Jackson ren ak ñàkk jeer ak Jackson ñëw teg ci Valdo Thiatou ñëpp ne combat amateur la tëgg te combat yi si nekk yëpp mënu ma ko lim tey promoteur boobu yow la ngay wax promoteur boobu. waaw di ko ñaanal yàlla rek yàlla yokk taxawaayam yokk dooleem yokk katanam ba bu dee ne mu ñu tëgg ay combat yu mag parce que bëgg naa mu tëggaat ma waaw. bëgg mu tëggaat naa mu tëggaat ma waaw. bii bu jeexee mu jox la avance. waaw instant yii nag bu ma mënoon jox avance sama fanaan ak sa baax na. kon da koy moo gën a baax su lu yàlla bind. waaw Baba Diaw bu nekkee yaa ngi may gis won ma ko bu baax baaba Diaw yaa ngi may xool. mu lay xool mu ngi lay dégg. waaw bu la neexee nga jox ma avance. waaw nga nanga ma jox avance su nga ne baaba Diaw mu jox la avance su. waaw comme waaw comme amul adversaire. Gris jël na adversaire. ah jël na adversaire. jël na adversaire waaw doomu dàngu la taxaw na yaram aar moo ko tëgg. voilà d'accord kon nañ kon incha allahu rabi maa ngi leen di xaar. Hmm. ku daan si ñoom ñaar ak ku daan yëpp maa ngi lay xaar. Ah, waaw. taloo sa combat bi di xaar combat bële. <laughs> wala ñaar aw lekk aw ñaar avance dafa xew. non man moom élève gumbu laa déedéet man moom xamee ma yow de boo xoolee tey damay daan combat bi ñu ne combat ma jëlaat combat boo xamante ne yaa ma gën a xam man man xamee ma yooyu. waaw gis nañ da Garga 2 mu nekk combat bu métti gis nañ yow ay combat yu métti rek ngay nangoo bëri. waaw parce que tey combat yi nga xamante ne gars yi dañ naan kii dañ koy moytu wala kii avance waaw avance mhm. gaa yi dañ koy moytu man combat yi laa gën a sawar waaw ñi nga ne dañ koy moytu. combat laa gën a sawar. sa bi Marley. waaw jàmbaar la ni ko nuyuwaale passage mu nekkoon combat bu neex. yàgg nga bëri ay combat bu neex. Mhm. mu nekk jàmbaar tamit ñu ko ñaanal rek xam nga làmb moo demee noonu làmb moom loolu la daanu ak daan la. waaw comme si nga jógee. jóge si machine aussi tamit. waaw yàlla mooy maye. waaw fii ñun ñëpp dañuy lu rek. kenn xamul luy xew suba yàlla moo xam luy xew suba ñu koy ñaanal yàlla. xam nga yàlla jëlee ko si tolof tolof bi jëlee ko bépp bépp sunu morom parce que ñoo débutandoo wa nekkoon ay adversaire wa sunu combat man ak mom gis nga nekon combat bo xamantene ne ah, oh, waaw wala kon koku ndanan la si biir làmb bëri xale bo xamante gëm na di nga bëri lo mës a bëri ad waaw loolu la bëgg sax waaw bëgg na mom bu mu ray dal na ma ray parce que ci ad wal du maye dara waaw man mi di wax dama nay nak seetaan nga diggante moom Mamor seetaan naa moom diggante moom Mamor seetaan nga digënté moom Kalmu Ndour mais xam nga adversaire yi dañoo wuté Hmm, man damaa wut ak ñooñu hmm. benn. damaa wut ak ñaar ñooñu ñëpp nga lim. Hmm. si bis bi la waaw waxuma ne du ñu ay ndaanaan de damaa wut ak ñoom. maanaam su ma déggee seen sa wax da leen gën a nekk ndaanaan. sama xadar ëpp na loolu maanaam fu ma mbëri sonalee. yow mosoo goo ñam arène nationale moom ñam na fa ñam fa ñamati fa yow mosoo ñam arène nationale. xam nga man loolu xam nga man damaa miin làmb damaa miin géew. nga compétir. waaw damaa miin géew. parce que tey ñun géew bu de bari nañ ko parce que boo jógee comme maanaam tey boo dëggee Pikine dem bëri ji comme exemple dem bëri ji soogoon xam géew kooku xamoo ko da koy dégg wala nga jóge fa dem bëri ji Fatick loolu xamoo ko danga koy dégg loolu moo tax ne miin nañ géew waaw loolu bëre moo tax xameetoo benn sunu problème xameetoo benn géew bu toogoon fii six ans sa bëre moom du suñu problème mais arène ganus gi daa bëri no ah fu ñu daan bëre moo ëpp ganus ñun maanaam tey éli ñu dëkk foofu ganus kese la Hmm. ngay ndaw dëkk Pikine ku wax Pikine na goxu lamb ku wax Pikine na lamb ku wax Pikine on autorité Pikine ta Baba jaw xalal tëgg lamb bëgg bisam stade bi tar mu fees côté mobilisation fan nga tollu waaw côté mobilisation ñoo wax nañ ñu wara waxal yeb comprendre nga mobilisation mu du day comprendre di woo waa Kër Massar waa consensus bu baax wa intercept 7 comprendre wa daru Misel comprendre nga ñom Seydina dinañ di wo bu baax ñom mu comprendre nga. ñoom ñoom euh, nu mu tëddee Perwoz. fi nga nekk nii nii gox yi nga nekk nii di Pikine ku ne xam ne autorité Pikine autorité Pikine ba am nañ yaakaar ne incha allahu rabi dina ñëw. waaw ki dina ñëw ndax tey xa waa Pikine yëpp ñi ngi xawal Valdo nan la war a mobiliser pour làmb ji pour mu taaru ndax ku ne xam ne promoteur lu mu am rek mooy bisam ku ko taaral. te yaa ngi ne nii da nga bëggaat pour Reum signé la kon mënoo dëkk Pikine du gooxu làmb te côté mobilisation du Valdo du du si communiqué lu bari côté mobilisation bi sa digganteeg autorité Pikine yëpp da nga leen war a woo pour ñu jàpp si bis bi ndax tey amoo loolu Pikine. dëgg la waaw boo xoolee ñoom ñii yëpp Moussa woo nañ ko jour signature bi ñoo ngi koy woo comprendre nga Ablaye Timbo aussi tamit waaw surtout Ablaye Timbo maire de la ville ñoo ngi lay woo ñun ay doomu Pikine lañ comprendre nga fii lañ am fii lañ ñuy tiitaroo comprendre na ñoo ngi lay woo si bés bi nga ñëw jàpp si bu baax a baax a baax waaw parce que bés bi daf ñu ñor nekk combat boo xamante suñu naw la moo ko tëgg mooy jeune promoteur boo xamante ñu koy woo Baba waaw ñu koy woo lay woo si bes bi nga ñëw jàpp si xam nga di woo sponsor yi nag ngay ñëw wuy si Baba Diaw comprendre nga ngeen jàppale ko si bés bi comprendre nga bu baax a baax ñoo ngi woo daal moo Modou Gueye ñoo ngi lay woo bu baax Isaaxa ñoo ngi lay woo Timbo sunu maire ñoo ngi lay woo waaw ñoo ñoo ngi lay woo si bés bi ne la ñëw jàpp si bés bi parce que tey saa yi dañoo soxla mobilisation bu doy waar parce que boo xoolee combat bi arène nationale bi jege nañu lool. te bu ginnaaw raay ngeen ngemboo. waaw incha allah Thierno Ndomba côté boobu la dëkk Thierno Ndomba. waaw Thierno Ndomba maa ngi lay woo naal sama combat man ak sa man ak maam Ngor Diouf mais gisuñu la woon combat bi tamit ñoo ngi lay woo. bu buñ la woowee tamit gis ñëwoo dootuñ la woo parce que tey ñun ñeen lañ am comprendre nga la woo yow sori woo si nga dëkk. comprendre nga bax baax combat woo nañ la gisuñ la bi tamit ñu ngi lay woowaat nga ñew japp ci combat bu hmm do bu nga wote nak profito tagoto walé wo kep ko xamanté tay Valdo bëgg na mu jappalé la ci walu tikay ci walu regroupement yi si wàllu lépp ku ne mbeur da metti te tonga ñetti at bi xam bëré wo kon tay say supporté nam nañ la say ki nam nañ ko xam Valdo de fa nga préparer combat bi écrit tay si nga boulevard wala. non non bàyyi xel la ko préparer écrit bàyyi xel. nekkatoo bul fa nekkatoo bul faale. non non nekkatuma bul faale. kon léegi di bàyyi sa xel. yaa kañ. depuis daaw daan daanaka. waaw ah, ah, depuis daaw waaw. léegi li bàyyi sa xel mooy ñoom presse. waaw ñoom euh, euh, naar. ba père père nu mu sax. sama père. waaye ma jëm rek. Ah. waaw père Bongo. waaw ñu ko nuyu bu baax mu nekk suñu père boo xamante ne xam nga moom wuñu sunu nawle ak sunu mag ndax nekk ko xam mama sala xam nga di woo tons bu baax ne ka ne combat bi sa combat la comprendre nga yàlla baax na daal waaw yàlla mooy may yàlla ñu yàlla suturaal euh, parce que ñun ay ndaw lañ ñoo xam ne gëm suñu bopp nag teguñ suñu yaakaar si kenn rek parce que fu ñu du jaamu yàlla jaamu yàlla bu mat sëg moo ñu fi indi comprendre nga kon ñoo ngi ñaan yàlla bi nga xamante ne mooy mootal mu motal ñu comprendre nga loolu mooy yoo lay am di woo waa ginnaaw raay bu baax waa ñoom Tafa Fall waa Fourba waa Arlem waa Manko waa Jokko waa Arlem waa France 2 xam nga di woo Kulhum waa Marsa war waa syndicat di woo daal li nga xamante ne tey secteur boobu cité fàttewuma kenn xam nga di woo digi enda nag hmm. waaw parce que tey waaw yàlla ànde si yàlla ànde fa lañ bëgg a defee open press. open press la. waaw jàppaguñu bés nag parce que dañ ko bëgg a boole benn open press maa soog ko yëpp. waa génne waa ginnaaw raay waa raay fem nag. post yi ñoo ngi leen di woo bu baax si combat bi comprendre nga bu baax a baax parce que di woo aji nag. tuwaan pël. bu nekk koo xamante ku sonn si si val. aji do la woo bu baax si combat bi parce que tamit mu nekk koo xamante ne ku yàlla baaxal la. waaw moo moom raxam laay denc. waaw di woo aji bu baax. comprendre ku luxum. di woo ñëpp daal am waaw di la woo nga tasaare combat bi fu ne nga tasaare ko site internet média war parce que tey nekkatoo am Pikine kese waaw kon tey am fépp nga parce que fépp ngay dem te mbëree la tax a ñor waaw mbëree la tax a jug kon tey bu euh, mbër yi mbër yi am du am boo xamante ne comme maanaam Valdo la faral wala far noonu faralul kenn doomu Pikine la nag liggéeyam lay def waaw caat nga comprendre ko bu la ñëwee jël nga xamante ne dalaa jël parce que amna joge gadjaway cher gadjaway géejawaay la dëkk def ma jël si ba yombal ko lol kon nak amul xajak sen combat bi nagn ko tek ci cadre sport man ak yow ñooy beure du journaliste du kenn du len parce que tay mbeur dafa dafa ñaaw njot te dafa ñaaw xalat fi yalla fi am tay combat mu nga koo waaj def li nga war def yeb nga dem ci lamu yalla ne na yalla bu nangu du am kon tay nagn ko tek ci lo ci cadre sport xamne ne lamu la day jeex bu jeexé parce que tay yow moy nga ma xaliss man may na la xaliss kon tey daanaka combat bi bokk na si combat yi nga xamante ne moo moo lay yóbbu fu combat examen la si yow ne combat bu gën a tar si yow si àdduna nag si lépp parce que tey ba nga dalee bëri ba tey mosoo bëri adversaire bu mel ni Baldo am kon tey am naa jom am naa fulla fayda te du ma te du ma may dara waaw du ma may dara nag te du ma xaar waaw man lépp lu sama xel may rek dama koy defi lépp lu ma sama xel may dama koy defi amuma ban sañ ñaan naa yàlla moom bu nekkee mun na maa yóbbu ardo mu yóbbu ma ardo parce que man damaa gëj a dem ardo man maat na ardo te man dama waaw damaa bëgg moom mu yóbbu ma ardo waaw moom na ma yóbbu ardo waaw. Mhm. kon kon Thiat yaa ko déggandoo ñu jël si woon Valdo kaddu yi rafet na trop kii champion la ndaanaan la def na si làmb mu war a bëre Thiat kon loolu combat ba pare combat ñaari ndaama la combat ñaari ndaanaan comme bu simee ko rek macha allah Valdo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di nuyu tamit Baba Diaw promoteur bi di wax ni sponsor yi nañoo jàppale ko ndax tey mu nekk ndaw tëgg ay tëgg sept grands combats. dama ne journée bi yëpp ay grand combat la Baba Diaw le 25 décembre journée bi yëpp ay grand combat la kon sponsor na ñëw jàppale ko Baba Diaw jeune nekk xale di liggéey jël bàyyi jël xaalisam dugal si làmb nañ ko dooleel jàppale ko man nag damay woote man ku may man tamit dama kon bëri nu ñuy woote noonu laay woote Kandji production maa ngi nuyu bu baax a baax a baax ndax démb dafa def lu rafet te ku def lu rafet kon lu may wax rek ku def lu baax nañ koy fësal ndax ñu dul def lu baax du roy si ñoom Kandji production ku na xam ne armée Pikine ni nga doon bàyyi bu bëri jënd ay ndoxam jënd léppam ay gants matériel bu gars yi soxla mu jënd ko indi ko kenn yëgul caméra topp ko dara topp ko gestes noonu dañ koy fësal ndax ñu dul def lu baax du roy si moom doomu Pikine la kànj ndax Pikine bii la dëkk fii la am kër fii la dëkk doomu Pikine la kon nañ ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ndax tey kon lu may rek du maire du député du ministre moyen boo xam lay demee yëkkati alal gu mel noonu def ko kon nañ koy ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram maa ngi ñaanal képp koo xam ne yaa ngi seetaan si Thioker TV si lu mag bi kon la ñëpp la fi nekkal képp koo xamante rek làmb ñor na la dinañ am dekk sinu micro waxtaan si tey ñu ñëwoon seet si Valdo mu nekk xale bu yaru nekk ku baax nekk koo xamante macha allah amul kenn xaar ma yàlla ju doomu Pikine ñu fekk muy liggéey si lu metti ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di ko ñaanal mook caat seen combat bi yàlla defal leen si jàmm yàlla may ko gudd fan may caat gudd fan ba juge que le maire gagne noonu la demee woon Maxi moo nekkoon si caméra bi am moo nekkoon si micro bi maa ngi nuyu sama benn doomu nday bu nekk Italie Yankooba du nuyu Ousseynou ak Assane depuis Italie maa ngi leen nuyu baax baax di leen jox seen wàccuwaay bu wér a du nuyu kenn koo xam ne si waaw musa Sa Moussa Moussa yaag Saliou Sarr comprendre taxaw leen si biir yi hmm. waaw parce que combat yàlla dañoo soxla ay bee yu bëri Saliou Sarr aw ma fayam moom seeraanu ma fenn moo ngi jàpp si man di sonn si man Saliou Sarr góorgóorlu bu baax yàlla baax na yàlla yàlla defal jàmm gis nañ moyens yi lu ñu soxla gis nañ taxawaay bi yàlla na yàlla suturaal bu baax koo xamal ne combat bi gannaaw yàlla ak yonante bi moom moo tax ma koy jaayante moom moo tax ma koy bëre comprendre maa ngi ñaan yàlla yàlla may ma ndam ma victoire mu mun ko koo fayee mun ko koo jox si anam si anam yu sedd guy comprendre parce que jàmbaar la seetaan ma depuis daaw li ma toog yëpp di bëréew ma fenn ko xam ne seetaan na ma parce que moyen ak lu mu mën ak lu mu mën moo ngi koy def du jaayante ndax bëgg tey fu ma nekk nii ma jóge fa nekk si high level boo xamante ne baax na kon ñu lay ñaanal bu mu jotee ba pare incha allahu rabi dinañ ñëw Italie seet si la ñëw foofu def fa un mois ñëwaat Sénégal fii di nuyu ñëpp di sant Gilay bu baax daal borom saal bi Gilay ñoo ngi ko bu baax di ko xamal ne tamit yàlla yàlla def daal. maa ngi nuyu géeram bi rek Saliou Sarr depuis Italie moom la Valdo wax maa ngi koy nuyu man tamit léegi sama xarit nga comme que Valdo xaritu Valdo kon sama xarit nga non Saliou Sarr depuis Italie man tam maa ngi lay bëggee di la sa wàccuwaay bu wér a wér di la wax ni tamit mooy loolu ah di nuyu képp Max di la nuyu bu baax di nuyu képp comme dañu nuyu Njaxas Café ah képp comme yaa ngi seeraan Fallou Galas depuis atelier maa ngi koy nuyu di nuyu